foofee ca assemblée nationale bu ñu demee ci législative yi ci jamono joo xamante ni itam Pastef mu ngi bëggal dem cavalier seul euh, pour moom itam am majorité à l' assemblée nationale. waaw mais cohabitation moom xam nga tubaab dafa ne la confiance n' exclut pas le contrôle et ñi mën a contrôler action gouvernement du ñenn ñu dul les députés donc pour man il faudra quand ñu diluer un peu les à l' assemblée fexe ba waxuñ pouvoir bu mu am majorité mais nañu fexe ba bu yëkkatee loo xam ne. Euh, du gën ci askan wi am ñu taxaw mën ko contre contrecarrer te du doon une majorité boo xam ne lu ñu yëkkati rek euh, bu ñëwee day jàll comme lettre à la post yooyu moom vraiment c'est de vieux souvenirs yoo xam ne sénégalais yi je pense que bëggatuñ ko vivre ak régime bu mu mënti doon et puis le président du PASTEF moo waxoon ne euh, opposition moom lañ war a jox majorité assemblée pouvoir kenn waru ko jox lépp te aussi opposition am majorité assemblée loolu du tee pouvoir liggéey liggéey bi moom moo ñu vendre la mèche jox nañu astuce bi xanaa sénégal yi loolu danañ ndigal jëfee la loolu dañ ko jëfee <laughs> mais hormis cela mhm. euh, concrètement il faut dire que Pastef euh, li mu jël comme décision loolu aussi dañ tirer des leçons du passé mhm. ndax aussi li ñu defoon deux mille vingt deux élire ay député élire ay maire mais bañ ca jógee réeroo politique am ku ne demal sa bopp d'abord PDS après intercoalition bi ñëwee bay samp bureau dañoo dem ut seen groupe parlementaire bokkuñoo ak yeewi groupe yooyu yëpp Pastef laa vécu léegi na stigmate yooyu xëy na moo waral tey Ousmane Sonko le leader du Pastef il prend les devants parce que ku muus ren aussi dañ la naxoon daaw. Mm-hmm. moo tax ñoom it ñuy bañ dugg ci piège coalition yooyu. nga xam ne ku nekk day ñëw buñ pare après ku dugg assemblée jël sa yoonu bopp te boobaa doo ci mën dara léegi nag lépp piège bi ñu gasal ñi bokk ci liste bi mooy xam nga parti boo xamante ne dugal na la assemblée. Mhm. soo ci génnee. Mhm. da ngay perdre sa poste de député. Aminata Touré jurisprudence Aminata Touré. effectivement. moo <laughs> mooy yoot ñi dugg ci liste bi. Mhm, c'est pas pour rien que mu ne. ñiy dugg dañuy dugg ak liste Pastef parti Pastef no gars yi xaru nañ. bu leen yeboo bu ñu jógee ci lii moom nañu dissoudre seeni parti fondre ko ci Pastef. mais dootuñ amati yoonu politique en tout cas duñ ko doxal ci assemblée nationale c'est très clair. Mm-hmm. parce que dañu duggee ci bannière Pastef. Mm-hmm. soit dañuy épouser les lignes du Pastef. dans l'hémicycle wala ñu génnee ci biti roof ñeneen. très bien c'est ce qui les attend léegi nag à prendre ou mm-hmm. ku ci am ambition politique. xëy na di nga am beneen option ku bëgg nag wax dëgg yàlla seeyal sa parti loolu njëkkee wuñ ko te duñ ko mujjee te kenn du leen ci mere nañu seey rek benn yoon. parce que après loolu moom dootuñ amati benn indépendance ligne ligne politique bi ñu bëgg à l' assemblée nationale. ce que cela présage aussi et c' est Sonko quand même qui prend toujours les devants mooy ci biir assemblée bi buñ ko tegee y aura des lois yuñ fay dugal amaana ku bokkul Pastef doo ci gis sa bokk bopp wala doo ci d' accord. léegi nag moom listam bi ñam cey dugal moom li mu indi soit da ngay d'accord wala ñu seet ku la mën a remplacer mais duñ indi dara yow ngay discuter wala naan c'est-à-dire boo koy wax kon ci biir assemblée nga koy defee mais du ci biir assemblée voilà ce qui attend les gens même des locales anticipées parce que bëri na ñu koy supputer naan les locales la dinañ ko anticiper après l'installation de la quinzième législature yooyu noonu yépp ñu ngi ñëw constitution bi dañ koy laal. dina am ñu ci laal donc ce que Ousmane prépare mooy dama indi sama groupe boo xam ne su ma ne sedd na ñu ne guy tàng na ñu ne lool jër mais bëgguma bu ma ne sedd na ñu ne déedéet nugg na hmm. guy laa bëgg a dégg ak jër léegi nag ku ci duggee ci condition yooyu bu ëllëgee bul dem ba biir assemblée hmm. ñun sénégalais yi nga naan sama ligne mayuma ko parce que aussi nit ki looy dugg hmm. xam war nga xam le le pour et le contre ñi ci valider seen bopp ba dugg buñ buñ ñu sonal après ci des indépendances de ligne politique parce que mënatuñ koo am fekk nañ parti jàmbur ñu dugg ci moom bëgg fal léegi nag dañuy respecter ligne parti boobu pour diir pour man pour stabiliser les institutions de ce pays il faudra quand même ñu am benn balance à l'Assemblée nationale tuuti entre pouvoir opposition de sorte que lépp loo xamante ne ñëw na man parce que man jàpp naa ne benn sénégalais yeewul doon ennemi Sénégal kenn du fekkee luy jëmale kanam Sénégal nga ne am nga ambition Sénégal nga taxaw doon frein ci loolu donc ku dem assemblée man gëm naa ne intérêt Sénégal di nga ko sàmm ak boor boo mën a nekk ak foo mën a féetee doo jël sa peut-être par parloo dem ba luy menacer askan wi wala lu dul jàmm ci askan wi nga di ko prôné. te doo xool aussi luy jëriñ askan wi. nga taxaw ne du yegg ci askan wi. parce que ñi fay dugg. Mhm. man gëm naa ne am nañu yeneen ambition parce que la vie ne s'arrête à la quinzième législature am na une vie politique boo xam ne des élections présidentielles des élections locales donc ñooñu duñu dem ci assemblée di fa taxawee noonu askan wi doon ñoo xam ne dañuy dugal mbiru xëccoo ci politique ci intérêt askan wi man mooy sama gëm-gëm léegi nag sénégalais ñoom ñoo moom seen i carte seul le peuple est souverain ñoom suñu jàppee ne il faut une majorité buñ ko defee aussi on va l'accepter mais suñu jàppee ne il faudrait quand même équilibrer un peu pour ëllëg en parce que nee naa la la confiance n'exclut pas le contrôle. et pour un contrôle quand même il faudra des des positions variées à l'Assemblée nationale. très bien Ndeye Fatou pour terminer euh, Abou Diallo ci wàllu woowu gis nañ également que ni am na euh, yenn parti yoo xamante ne ba tey dañoo langaamu ndax nee na dañuy dem bannière Pastef waaye terewul ñenn ñi nee nañ dañuy ànd ak moom génne nañ communiqué euh, ku ci mel ni grand parti soutenir ñi nga xamante ne ñoo di Pastef ci li ñuy demee ci seen liste ak ñeneen ñoo xamante ni tam ci boobee parti lañu coalition lañ bokkoon. ci loolu man euh, ci en avant dama daan def yenn analyse yi jëmale ci parti démocratique sénégalais euh, ci sama gis-gis. bi ma mhm. amoon moo doon jàpp ni ni ni ñuy doxalee c'est un peu se rapprocher du pouvoir man maa juumoon ci li ma gisagum parce que je les ai vus ñu def benn alliance xaw ma confirmé na xaw ma confirmé wu. si si c'est confirmé ak man maa. Mhm. personnellement. ñoom na fi ñoom ñooñu ñëpp man man maa ju man man j'ai l'habitude je veux tout le temps bu ma. mais quand même pour vous dire que ne y a deux camps quand même. parce que am na ñoo xamante. voilà merci beaucoup am na ñu ànd fee am ñeneen ñu dem ànd fële voilà. comme par exemple. ci hmm. seen doxalin politique. si seen dox xam nga dafa am benn logique. boo xam ne depuis ci ñuy ñuy changer élection yi di tuumaal Amadou Ba alliance boobu dañul woon. Hmm. c'était sax trois. alliance bi Qatar trois la woon Karim Wade Ousmane Sonko ak euh, kii Macky Sall loolu lañ ko tuddee woon. Mhm. bi ñu demee ba ci biir PDS retiré wu xamatuñu fu muy taxaw mais kun bi ñuy xalaat suñu gis-gis dañu laaj ñu ne ñii de ni ñuy doxalee ba ni ñu mujjee voté loi yi dañ jàpp ni ni. am na une sainte alliance bu war a mën a am bi ñu voté dernière loi bi j'avais dit que PUR ak PDS ñoom dafa mel ni choisir nañ seen camp d'après Serigne Moustapha ni piir waxee ci élection yi demul foofu man maa ju mhm. bu PDS maa ju mais souvent le PDS bi Djibril Wade incarné ak ñoom Pa Doudou Wade incarné ñooñu dama gëm ni ni même bu ñu demee alliance ak waa APR seen cuisine interne la mais groupe boobu di wax souvent la PDS te ñu am ay base comme ñoom Djibril Wade dañ leen war a déglu suñu leen dégluwul aussi tamit ñu bàyyi xel ni ni patrimoine PDS kenn du ko gérer à l'extérieur mhm. parce que Karim Wade aussi tamit ñi war a voté ji nañu bàyyi xel ni ni Sénégal dafa war a dépasser benn leader tëdd fële du yegg si du ñëw di décider. parce que ay kilifa ñoo nekk PDS comme ay Djibril Wade di gagné seen commune. benn commune bi leen di rëcc bi ñuy am tout le temps c'est Mouhamed Djibril Wade président Doudou Wade nekk fii Sénégal di leen xeexal mener les combats seeni wax dama ci bàyyi xel parce que li ñuy mener pour PDS. Mhm. dafa am solo. donc pour revenir ci Ousmane Sonko sànq Modou Fall wax na typiquement li ma bëggoon wax mooy Ousmane Sonko.